mbokki safoo di seetaan li nga xam ne mooy seen site d'information Baol Times TV ñoom mbégte contentement bu baax a baax comme ni nekk toppalee saa su ne rek tey ñoo seeti woon li nga xam ne mooy euh, bassin de rétation yi nekk fii si diwaanu Diourbel euh, def ngir def ci li nga xam ne mooy ay ay gëstu tey nag seeti nañ li nga xam ne mooy euh, dëkkandoo yi nga xam ne ñoo dëkkee foofu noonu ak ñi nga xam ne ñooy faral di euh, fréquenter foofu euh, yenn bassin basin de rétention yi ngir xool li nga xam ne mooy risques yi mais aussi tamit xool li nga xam ne mooy avantages yi dëkk nañ suñu micro ñi nga xam ne xëy na ñu ngi dëkkee côté boobu noonu wala ñi nga xam ne ñooy fréquenter foofu noonu ngir seq ñoom waxtaan si loolu nag ñun noté nañ li nga xam ne mooy xëy na ay risques. li jëm si nuisance visuelle yi les problèmes liés si li jëm si entretien yi tamit les problèmes euh, liés si li jëm si sécurité bi ak li nga xam ne xale yi parfois accès bi su amee euh, jafe-jafe yi fay faral di am ndax net noté nañ li nga xam ne mooy barrières yi nga xam ne amoon na fa waaye barrières yi euh, yenn yi dagg nañ ko yenn yi yàqu na ba nga xam ne xale yi à tout moment mën nañoo am accès si li nga xam ne mbasin yi te loolu ay risque la li jëm si risque yi tamit euh, mooy les dégâts de perte humaines les serpents ak yeneen xeetu euh, animaux yi nga xam ne farfa day faral di nekk foofu noonu euh, si loolu tamit xool nañ li nga xam ne mooy les atouts mooy li jëm si entreposage yi des eaux pluviales li nga xam ne tamit si avantages yi tamit seetlu nañ si Euh, mooy que day récupérer ak conserver euh, les eaux de pluie euh, tamit waaye li nga xam ne mooy eau de pluie mën a doon des eaux de qualité waaye tamit mën na nekk benn avantage économique mën a doon aussi tamit naturel adoucisseur li nga xam ne dafay baax si yaramu nit ak ay karaw li jëm si li nga xam ne mooy wér-gi-yaramu nit en général mais aussi tamit la longévité de vos appareils et de vos plomberies ndoxu basin de yi nga xam ne ndoxu puits la dafa baax si li nga xam ne mooy appareils yi ak plomberie yi ndax dafay conserver li nga xam ne mooy euh, euh, matériels yi tamit euh, tamit mën nañoo jàpp ne aussi tamit c'est un avantage environnemental si dëkk bi mu mel ni daal tey def nañ li nga xam ne mooy jéego yooyu noonu ngir woon leen risques yi ak avantage li nga xam ne mooy bassin de rétention yi xëy na déglu ñi nga xam ne ñooy dëkk foofu noonu ci booru bassin de rétention yi ñu jox ñu seen appréciation. fii moom kuñ ci dimbale sëñ bi ñu jël ndax gis nga fii li fi ne lépp mbarit la moo xam ne nii ak garab yi nga xam ne wóolu suñu njaboot ñi muñ fee jaar ñun ñi góor sax bu bu guddee duñ fi ñemee jaar te amuñu weneen yoonu wu dut fii buñ sañoon ñu dimbale ñu ci. suñ gone yi ñemewuñ fee jaar suñ jigéen ñi ko ci duggi boo ñëwee doo fi mën a jaar loolu yëpp ay jafe-jafe la mbalit mi xam nga ne lii ñu koy nooy it ñun dañoo mut pexe mais ay jafe la saret bu ñëw fii ngay tuur bu deewata mbalit boo ñëwee fii ngay tuur mbalit mi ñu di fi jaar di ko nooylu maa ngi nii di fi jaar te mënu fee ñàkk jaat gis nga xet gi fi nga taxaw nii ni mu lay xeeñe nii loolu daal bu ñu sañoon ngeen dimbalañ ci moom yàlla leen ñu ko bañ mën ñu ciy dimbalee daggal ñu garab yi defal ñu fàkkal ñu ko daal bañ mën di fi jaar dem loolu daal moom mooy suñuy tawan moom ñun waa koñ bi moom waaw bassin bi moom dan andi na fi ay yoo andi na bari na fi bassin bi moom li gën a yàq loolu bassin bi ci la moom bassin bi moom li ñu gën a lor bassin bi ci la moom bassin bi buñ ko jaarloon ci yoon mën naa mën naa am njariñ ndax mën naa am jën mën naal mais amul toppatoo gis nga ni mel munoo xam ndax bassin la ndax garab yi ci sax lépp kon loolu xam nga mënta am njariñ waaw amuti grillage fi mu ne lii wóorul sax pour si sécurité xale yi amutul grillage yi dañ na benn grillage buntu amatu fa xam nga loolu amul sécurité wóorut ci ay xale yu ndaw gis nga xale yi kalaas yi xale yëpp dañ fiy ñëw di fa te suñuy doom lañ mun ñu leen a téye loolu daal moom buñ ñu sañoon ñoom ñu dimbalañ ci moom ngeen jàllaleel ñu ko daal ba ñu ciy jàppale dimbalañ ci bu baax. asalaamaaleykum Diourbel ah, may jaare waa Baol Time di ñaan seen rajo bi fu mu àgg rek fu rajo di àgg rek mu àgg fa wala télé ci kàttanu yàlla parce que it lii c'est très importance comme au niveau de am na yenn certain de euh, xeet yoo xamante ni yenn wala yenn certain de béréb yoo xamante ni ñu ngi si Jurbel tey autorités yi mën nañ ko bañ a xam ni mi ngi ja ñu ngi ñu dëkk ak ñoom ñu ngi jànkoonteel lu métti lu demee ni ba battee de rétention yi ci kër gu mag nga xamante ni ñun ñoo dëkk kër gu mag dëkk ci kaw de descente bi ñuy jànkoonteeg loo xamante ni bassin bi ñun du loolu lii leen foogoon ni moom moom moom moom lañ ciy jànkonteel danoo foogoon ni bu ñëwee suñu wér-gu-yaram la ñuy indil suñu kaaraange sunu su suñu suñu jàmm mais tey dañuy toog ba ci yàgg tey am loo xamante ni day day day génn ci bassin yi mais du lii la doon wax loolu moo tax ñuy wax bassin bassin dañ koy toppatoo bassin dañ dañ dañuy am ay comme barrières yi ñu fa defoon defoon na fi ay barrières commencement bi ñu ne bassin bi dañ koo indi fii kër gu mag pour pour defar ko pour di ci def ay ay jën yoo xamante ne wala di ko toppatoo muy am ndox moo pourtant ñun ndox mi ci njëkk a nekk c'est très important comme ñun parce que dañuy toog ndox mi di génn euh, brise ndox mi di ñu daal ñuy am ay wér yaram di xam ne lii suñu jàmm la mais danoo dem ba ci biir mu jural ñu loraange loraange bi mooy lan ay mbët ay bar ay jaade certaines mala yoo xamante ni yu yu ñu ngi ci ndox mi te wóorut suñuy doom dañuy jaar fii tout tout à tout moment ñun daal ñu ngi ñaan autorités yi wala ñu ñaan ñi nga xamante ni ñu am doole am am doole ci réew mi ñu ñu dimbali ñu ngir yàlla bassin bi ci kër gu mag ñu jëf def ci entretien parce que boo xoolee Diourbel lii lépp njariñ la mais njariñ bi au niveau de Diourbel dafa mel ni autorités yi ñoom tegul leen ñuy dara parce que Diourbel wax dëgg yàlla kër waxuma rawatina kër gu mag parce que fii ku fi falu buur rek quartier Médinatoul ñoo la fal mais nekkul ni ñun quartier Médinatoul dañ ñoo tegul nit tey boo demoon ci yoroon quartier yi ay kër Cheikh Anta Diop kër Cheikh nga dem eh, eh, Demba Wele nga dem foo mën a dem ci Diourbel ñu ngi lay toppatoo di leen defaral ay ay ay di di nekk seen yitte mais Diourbel ne kër gu mag amul kenn koo xamante ni yaa ngi fiy dugg nga autorité soo ñëwee nga gis lii. léegi nag ñu ngi ñaan Macky Sall wala ku mu mën a doon nga njiitu réew mi wala ñu fi teg muy madame mm, comment dirais-je Fatoumata Diané. ngir yàlla lii Jurbel bassin bi mu dimbali ñu defal ñu ci aw kaaraange man na kontaan naa ci Baol Time TV ñu ngi leen di ñaanal ca kaw ca kanam. waaw parce que fii man bu njëkk bu njëkk dama dama dama daan romb fii am ñuy napp du napp jën déjà benn jour sax jaar naa fi ñu may ma ñaari jën ma leen jën yi baax na ñu ne ma ah lan moo ci nekk ma dem sax soxna si toog ko muy ceeb bu neex. léegi ko nga xam ni loolu kay Jurbel gii tey lii buñ ko defaroon tey def ci entretien mu mu doon ay jën yoo xamante ni da nga ko da dañ koy jën ko dimbali ci waa dëkk bi waa marché bi day day jën yu baax a fi nekk jën yu normal ñoo fi nekk ba dañuy dem ba dëgg est jën yi sax dawuñu parce que amatuñu aliment kenn kenn parce que bu demee ba ba yenn yenn yenn matières yi dugg ci dañuy daw parce que yii fi ñu yëpp ay mbalit la ñun mënatunoo noy bu guddi jotee bu um ñemewu ubbi sa fenêtre bu guddi jotee ñemewu ubbi sa fenêtre ndax xet mais loolu nan ñu ci dimbale nan ñu ci dimbale loolu baax na de bu amee rek dina baax dina baax ci waa kër gu mag. mooy njaaram dañoo am lu doy mais xamuñu ko préserver wuñu maanaam ñoom lijjanti wuñu environnement bi fii maanaam daal lu ma la mun a wax daal maanaam nit ñi daal. xamuñu sax lan mooy njëriñam y a tellement de pollution partout au centre et aux alentours de Diourbel tout nag amul est amul ouest amul nord amul sud c'est partout loolu nag xam moom man comprendre ma ñi war a def seen liggéey ñoo deful seen liggéey wala nit ñi ñoo xamul wala dafa amul ay sanction wala nu mu demee noonu partout la gars yi di yàq. mais sànq dikk nga si li nga xam ne mooy plan euh, si le plan économique bi nga xam ne bassin bi war na ko mën a jur. waaw bassin bi am na xaalis bu bëri man j' euh, l' année passée euh, ci vacances yi. billaay wallaay sama yaay yóbbu naa ñaar sama yaay moo ko togg le lendemain la ma ko toggal et puis c'est un bu bu ma boo xamante ne bokkul parce que deux espèces a jot a gis gisagu deux espèces yu différent quoi. Mm-hmm. et c'est un poisson mun na defar ci économie lu bari mën na defar ci économie bi lu bari ñaari ñaari espèces yi xaw naw ma ñoom ñaar kese ñoo ne mais ñoom ñaar découvert naa la ku ci nekk gis naa la laal naa la téye naa la parce que def ma jaaxaloon ko ma ne non comment nan ay jën am na fii ak ak bu baax en plus bu baax la buñ ko gérer defar ko non commune bi dina ci am ñun ñi nga xam ne ñoom moom dëkk bi dinañ ci am dara pourquoi pas gars yi yor ñëw def ci seen xaalis defaraat te mun na indi tamit tourisme hmm. mun na créer tourisme mun na créer hmm. mais pourquoi pas bu ñu investir gis naa après bu yoonu Touba bi foo xamee ne noonu lañ ko def quoi mais ça n'apporte pas assez quoi parce que defuñ ci li ci war a def lépp ça mm-hmm. n'apporte pas assez parce que defuñ ci liñ ci war a def yëpp mun nag parce damay gis booy Jurbel waaye dañuy soxla yooyu mm-hmm. koy soxla quoi des lieux de loisir quoi mm-hmm. pourquoi pas c'est des lieux de loisir il y a des oiseaux immigrants regarde regarde les xoolal xoolal tous ces oiseaux là ay immigrants lañ sont venus là juste pour un période hivernage après ñuy demaat seen yoon. waaw salaam y' a d' autres oiseaux aussi qui vivent ici à cause des poissons. Mhm. ñoom duñ dem fenn ils sont là toutes ces espèces sont là mun na indi lu bari ci wàllu économie mhm. lu bari mën na indi changer en plus dëkk bi mooy gagné parce que dina gën a set. Mhm. suuf si dundul nit ñi dund suuf si bu dundul ñun du ñu dund. dudu xoolal yaa pil mais il y a des risques ici hein? ah pourquoi pas il y a plein de risques il y a des risques de malade aussi pour ay espèces yoo xamante ne dañu dangereux mais jusqu'à présent déggaguma fi koo xamante ne am na am na fi accident quoi peut-être mun man ma amul info yi mais déggaguma ko fi quoi mhm. waaw léegi nag gars yi war a daw defar quoi dagg garab bi yëpp taaye ko xamal gaay nan kenn waratu ci dëkk ñu defar ko non seulement ces oiseaux immigrants yooyu buñ defaree fii defar ko digg yu baax génne defar canal yu normal yu mu ne parce que fii Diourbel amul ay xam nga aiguilles yi sont pas euh, euh, branché leen ci kanaal yi direct quoi mhm. donc kon war nañ mën a am ndox bu doy boo xamante ne mun na fi nekk boobu saison prochaine mhm. comme ça espèces yooyu mun a du continuer seen dund quoi seen dund seen existence mun a gën a ñoŋ quoi ba nit ñi mun ci am dara parce que maaleykum salaam man lu ma jemee ci gan di surprise la man damay dox ni côté tur l'ancien tribunal maa ngi dox dama jekki-jekki xëy nii xool ma ne mais biir ndox taw bi ma ne mais li ba defaat demi waa mais gént walla nu mu demee nii si nii mu tëb mais dañuy jàll nii. jën yi quoi jën yi fees na camion <laughs> mais buru la ñuy bañ te jën yu yeewu lañ boo defee buru rek ñu dem mais et jën yu baax la moo gën yabooy bii fuuf buñ ko exploité woon jigéen ñi dinañ ci liggéey. góor ñi liggéey ci dina am parti boo xam dinañ ci dinañ ci am ay xéewal yu dina générer ay affaires yu bëree baree baree bëri yoo xamante ne xool ce sera bénéfique pour tout le monde que ñuy ñun muy commune bi malheureusement ñun niñ ko waxee rek du ñu xool ci côté bi nga xamante ne waaw ñu xool ci côté bi nga xamante ne moo ëpp sens quoi dañuy xool ci côté yu nga xamante ne amul sens koi amul bopp amul environnement bi gis nga en plus fi ñuy yàq xéewal kese fi ne pour ñëpp dëkk bi xam nga dëkk bi bu amee ñun ñëpp dañuy am man ku ma waxoon fii am na ay jën dama naan c'est pas vrai il faut que mairie bi jóg état jàppale ko tamit ñu ñëw Jurbel def fi dara dimbale ñu parce que man lii c'est un c'est une honte mm. c'est une honte pour man parce que ñeneen ñi bu ñu ñëwee sa man Jurbel laa tiitaroo fii laa juddoo xaw ma fenn fii lu ma munti uti bu ma ko amee fii laa koy def une partie fii lay ñëw quoi donc kon lii daal franchement gars yi war nañ ci mën a jóg mhm. ñu defar ko quoi mhm.